jërë ngeen jëf waa njoleen di famille jol gi faatu woon ci lakk ca Denver ga ca Amérique ña taaloon kër ga l'Observateur nee nañu jàpp nañu leen ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy fàttali ni guddik talaata ñeenti fan jàpp àllarba juróomi fan ci weeru août 2020 ca la lakk ga amee woon doonoon lakk gu mitti ba famille jol ñàkkoon ci juróomi nit Jibi Jol Adja Salimata Jol Khadija Jol Kumba Jol ak benn parentel bu ñu naan bébé awa ñoom ñëpp ca lakk ga la seen bakkan des ña jafaloon sawara wa police bu Denver teg na leen loxo ñetti nit lañu di ay gone yu góor yu toll ci fukkeet ak juróom juróom-benn mooy Sarr secrétaire d'état chargé des sénégalais de l'extérieur di ñu wax ci biir l'observateur nañuy defoon jëf ju ñaaw joojee kilifa yi danañu leen teg daan yi ñu yellool vox populi nañu police bu Denver teg na loxo ñetti ndaw yi taaloon kër ji jol tuuma yi ñu gàll ci seenu ndodd bari na faat bakkan nga ca cambriolage nga ca am na it ndaw soo xam ne yéenekaay bi nee nañu jàpp nañu ko waaye ba léegi leeralaguñu ana lan ñu jàpp ko tax ñu teg ko Ndindi nañu ko defali compte ci mbiri Boubacar Seye ak li waral coow li mu di téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñett yi ñu ne waa Union européenne jébbal na ko Sénégal ngir mu xeex ci tukki bu jaarul ci yoon di immigration clandestine Le Quotidien nañu président Macky wàll se ci wax ji bay sàkku ab rapport bu jëm ci projet yi ñu financé ak ci xëyum ndaw ñi li mu bëgg mu leer ci boppam moo di financement gi ñu ne Union européenne da ko financé nee ñu jële ca barab ba dinañu leen taxaw lijjanti seeni mbir ni mu leen ko diggee woon atum 2017 ko nañu boy kees di Yankhoba Diattara ministre économie numérique ak télécommunication la ko président Macky wax démb ca ndajam conseil des ministres ndax moom Yankhoba Diattara dafa diggoon askanu Mbour kat gi doon ñaxtu ne seeni tawat dinaa ko yeggee président de la république yéenekaay bi nañu ni mu leen ko diggee woon noonee la ko defee ñoo di ñi nga xam ne commission bi ñu sampoon jotoon na leen recensé soleil national nañu leneen a ngi lool it moom président national santaane na ko démb ca ndajam conseil des ministres mu di texte yi jëm ci convention de la presse ñu jëmmal ko boole ko jëfe lépp suur soi nañu mbir a ngi ci kanam moo xam ne fu muy jaar ba jëfe ko moom président Macky Sall dana ko ëlëm lool mu di ndàmpaay di prime de motivation gi ñu warloo ak fajkat yi ci jamonoy mbas loolee ci jamono joojee yéenekaay bi nee nañu coronavirus bi ak i loraangeem ñoo ngi gën di jalaañoo ci réew mi ñi mbas mi faat ci Sénégal léegi lim romb na juróom-benn téeméer ndax démb rek am na yeneen juróom aadama yu faatu ci coronavirus bi boole ñaari téeméeri ka coronavirus ak juróom-ñett yu ñu enregistré enquête dina nañu vaccin di ñàkk yi ñu ne ñoom man ci mbas mi dara bala ci néew ji doole yi di jot danañu wax lu set wecc ndax borom doole ren ngardaajoo nañu ko waa union européenne sax nu ñu mën a def ba am ci vaccin yi loolee dalee na ëlëm guddi ñu toll te ginnaaw giléem bu tëwee ay naar jommali pël moo tax réewi afrique yi kenn waxaalewu leen bu leen ci covax wala vaccin chinois yi ba vaccin yi ñuy defaree ci Russie génnewul kon danañu yeex a l'observateur xibaar ci xëta mu njëkk ne coronavirus bi ak ni mu mel ci réew mi fan yi ak li mu fiy faat tax na kilifa yi rawatina kilifa diine yi jël seeni matuwaay ba ci président de la république ko naan ñu matuwaay yu ko yokk fan di ñëw coow lu rëy nar na ko topp moom président Macky Sall ñetti milliards yi mu joxe woon ne woon nañu ci jàppale ñi nekk ci culture bi ci jamonoy mbas mi journal bi nee nañu gaañi séddale nañu xaalis ba ba séddaale fecckat ya waaye la ciy ñuul moo di fecckat yi ci réew mi ba ñu séddoo kenn ku nekk ci ñoom 18 000 francs nga am